waaw kon nag kenn kaa mos a tuuroo ñëw nettali. ma ne kon kon kon nag toogal fii yaa ngi dégg fii ngay toog demoo fenn yow fenn nga dem. nga a profité tuuroo ñu ne la ah, koy jëndal fii wala yow. lii lii lii yow mënul na. <laughs> Ah, da ngay dem. nooy def da dem wala da ngay mm. moo gën. sage mm. décision. dem pare. Ah, ngaa la yow nag. moo gën ne sage décision. <laughs> fekkete yéen dem dem mami. man dew ma fenn. ma ko ma woo de ma am na fu ma ko seen de ma ne ko nit ñi xam nag. wax man nii seen nu ma fenn de bartunt bi. ma ne ko man nag wax dëgg yàlla kooku kooku day ruube. nag moom bu dul du feneen. wax dëgg yàlla. man sax mën ngeen ma seen feneen parce que wax dëgg yàlla bu dee dëgg rek la yàlla bëgg ci waxum politik dama cee bëgg a loo bëgg def rek bëgg mbalax. lan la bëgg def émission ak Bongo Maane. bëgg mbalax. <laughs> da nga bëgg def émission kàcc kàcc kàcc kàcc kàcc loolu nga bëgg. caxagu ne déedéet doo fi caxagu ne nag Nabou doo fi caxagu ne. <laughs> nit moom xoolal lu jiitu ca yow rek tëca yow nag lii daa jiitu ci yow mbirum politique gérer ko rek te yow ñoom say xarit lañ gérer rek Nabou ñun xam nañ lépp wax dëgg yàlla. na mm. amul solo yow boo demee ci artistes yi dina réseau brutal lañ lay defal. brutal. déjà dañ la bokkoo ci ñun retourne fi nga nekkoon bu fekkee ma jàdd droite. ah waaw. Ah, ah. yaa ngi may dégg. ñoom loolu ñuy def noonu du booy ci des fois yi di guddee. Mhm. da ngay gëmmentu. Ah, eh. ba waaye dugg na na bu waay. Eh, eh. est-ce que xam nga ni loolu mooy fajar gi piqûre commencé naa dugg. maa gën a naqaree àndal ci àddina. tu sais pourquoi fu ma ànd ak 22 heures jàpp 23 heures sama pile yi fay. heure boobu nga commencé nelaw. du ma gis guddi. wax nga dëgg de. temps yi sax nag wax dëgg yàlla su su waale yi dafa neex temps yi su waale yi dafa neex de <laughs> boole ceeg artistes yi temps yi danoo bëggante ba danoo takkante tuwaarkàll loolu mm-hmm. loolu neex na nag ñu félicitation ak i HGBest ak félicitation kii Samba Peuz yi mm-hmm. félicitation weekend bi weekend de mariage lu ma gëj a gis waaye mariage laa gëj a gis mm-hmm. yàlla defal leen jàmm jubóoli seen soxna yi ci barkentu bi yàlla baax na yàlla nga ci ma ne yéen a ngi yéen a ngi dem rek yéen ngi mariage rek <laughs> li ci des yàlla baax na yàlla yàlla barkeel <laughs> def ñi ngi mariage rek ah altine fukki fan ak benn ci weeru décembre. borom réew mi moom day waaj jël soxna te liir la kat man loolu moom la magam jëmm na àll am jabar. réew mi dama lay wax de soriwul ay quatre-vingt-quinze ans yooyu mag la de gis nga kanamu borom réew mi nga naan ay jeunes la bu génn ci yi nga nekk borom réew mi dégg nga baatam. soriwul ay quatre-vingt-quinze ans yooyu à peu près. xaw na cee tool wax dëgg yàlla. te moom sax coow li mooy du tànn jabar moom moom dafa mel ni jigéen ñoo koy tànnal seen bopp. waaw waaw waaw il est très courtisé. net. moo tax ñi nekk foofu noonu nekk sonal ko bëgg a nangu bësam bi arrêté leen ñun borom réew mi la ñuy topp. waaw bëri nga bëri nga ma topp ma ko de man daray borom réew mi la ba topp en déedéet man man bu ma topp sax man maa dugg ci dara am <laughs> yow yow yaa ñeme borom réew mi ba koy fréquenté man fréquenté wu ma ko merci rek man mosuma koo ñeme ah boo ko ñemee ñeme sa musiba heure bu ne mën na laa defal vidéo mami nag yaa ngi jong ma nag sa dox kàttan wala yaa ngi mel ni ku toog ci yupp laa de ni euh, télé boobee ngay far di xarmat comme damay waaj dem ci mbalax mi na leer rek benn yoon buy ñaaw na ñaawee fii fii laa ko la ci télé bi na ñaaw ko alhamdulilah télé bi ngay xaree matt laa la wax <laughs> ma jaaree fa nuyuwaale ayu topp Mahfous yi maa ngi bu baax a baax a baax a damay foo rek sama la <laughs> di nuyu Moustapha Top ma ni siis di teg am nga deux minutes sa ma wax la yëpp laa lay niroo. lii yëpp du sa jikko gaala kan moo lay monté gaala moo lay monté nabu nga may def ay attaque personnelle yaa ngi dégg génn ci yi nag lii dafa tudd. Mm, génnal ci yi man du ma toog ci yëpp laa mm. nabu koor wax naa la ko. man du ma moromu yëpp laa man ku ma bëgg teg ci yëpp laa yow moomu laay teg ci yëpp laa boo nekk du la puus ak di la woyal berceuse wolof dafa lay wax rek génnal ci yi nga nekk nii. te ku la wax foofu dama fay xarmat na bu yow doy waar ku la wax ma def waxu bénévolat. bé bé. ba fii le jour ñëw na ci dossier affective mu ne tragique destin mu ne je n'ai affection pour ma mère subhanallah j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant pour ne pas le faire subir le même sort yow mii lu la dal je n'ai affection pour ma mère Comment on peut ne pas avoir de l'affection pour sa mère Hein Reportage talibé, le risque d'une affection transférée. Docteur Moussa Sow, psychologue, mu ne le plus grand désastre psychologique na bu pour un enfant mu ne c'est la carence affective dëgg la. dëgg la lu bari nag gis nga loolu dañu koy sàkkadee ñun. Mhm. maanaam dañoo desee am culture boobu faut dire que tubaab moo nu gën a affectif. Mhm. ñun ñun amuñu ay culture kalan tu vois dañ naan ma kii dafa bëgg ay yëfi tubaab torop il faut soof waay. mami ñun yaakaar nañ ne doom dóor pini gëdd saaga loolu mooy yar bi wala bu ñu defee yenn yenn bêtises yi ñu yaakaar ne jëndal leen cadeau mooy tax mu changer. Mm-hmm. il faut être entre le juste milieu. te doom danga koy xiirtal ci sa bopp. être présent. très présent l'enfant a besoin de beaucoup d'affection. Mm-hmm. beaucoup waaye boo amee yaay ju mel ni man nga xam ne boo jubloo ci man dama naa la may ma dama sonn maa ngi doo a wàcc dimbali ma fekk xëy na xale boobu am na lu mu la bëggoon a dénk si. Mm-hmm. waaye sans le faire exprès tëjal nga ko sa bunt muy màggee loolu ak psychologie boobu di ko màggee ba yaakaar ne yenn xale yi. ci ñun ñëpp jaar nañ ci d'ailleurs. Hmm. bu la sa parent di corriger da nga naan sama yaay bëgguma wala sama papa bëgguma daf ma bañ. parce que correction bi ñun ñoo tàmm di ñu yare lu sévère loo xamante ne ni pour ñu tant que sévère rek yaruñu la. Hmm. dangay nekk ci kër ñu naan pas allemand. dëgg la léegi nekkatul attention chien méchant de attention pas allemand attention mère bi dëkk fii non dafa weexat alors que weex baax na. mais il faut être dans le juste milieu soo waree corriger corriger mais quand tu dois apporter de l'affection apporte beaucoup d'affection à vos enfants surtout léegi nag gis nga njabootu léegi njabootu kanaara la dañuy jiitu nga topp ci seen ginnaaw parce que génération bi moo changé mentalité bi ñoo changé ñooñu gën a éveillé téeméeri junni yoon la ce que tu dis c'est très vrai et ce qui fait que il faut avoir beaucoup d'intelligence et beaucoup pour que yenn yi nga mën ko am ci ñoom. xam nga lii kuy dem ba koy xalaat lii dafa doy waar. c'est extrêmement grave te nañu bàyyi suñu doom yi nga xamante ne par fuite de responsabilité. Mm-hmm. bu ñu leen waree yé téye suñ suñuy wet di leen jàllax ñuy dem feneen. quand on n'a pas les moyens de gérer un enfant on ne fait pas d'enfant. Mm. Ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à être là. Mais quand on prend la décision de faire des enfants, Naboukor, on assume les on responsabilités. Assume. Absolument. Jusqu'au bout. Mhm. ñun bu ñu yàlla mayee ñu juddu màgg ba am borom kër ba uuf doom ba commencé yar la ñuy door a xam lu suñu yaay yi suñu papa yi daan daj. Mhm. tant que jaaragoo ci xamagoo mooy lan. moo tax ñu naan ni tànk jigéen tant que juróogoo doom bu uuf sa doom loo def yàlla loo def yàlla sa yaay yàlla bàll ko waaye bu xasee bu uuf doom. ba jaar ci maternité non mënatuñ la baal dara. Mhm. parce que dañuy xam ne xam nga lu sa waajur bu jigéen dajoon. donc doom dañu koy toppatoo dañu koy encadrer dañu koy sàmm dañu mhm. koy aar ces enfants n'ont pas demandé à naître. Mhm. surtout que ñoom jamono bi ñu tombeel neexul jamono bi dafa naqari jamono bu métti la ñu tombeel. jamono bi sax dafa soxla soxla waxtaan ajaratu. torop communication xale faut ngay waxtaan ak ñoom il faut nga leen di tàmmal seen bopp. oui déjà day tax ñoom assurance parce qu'à l'avenir il faut beaucoup d'assurance pour vivre ci jungle bii ñu nekk. tu l'as dit jungle la de. te faut beaucoup de bagages yoo xamante ne ci sa éducation de base lay jógee. Mhm. moom ngay àndalee ci sa ci sa cursus moom ngay àndal ci sa ci sa vie tout au long de vie moo lay gunge. Mhm. et ça affection rek moo ko mën. affection je vais te donner un petit exemple Euh, bébé nag bu suñu xale yi dañu ko tàmm moom dafa tàmm yéeg sama néeg ba euh, mujj gi yoon tool la ko def mais xale yi dañu tàmm bu ñu ko yóbbu ci kaw euh, di ko ragalloo ba mu ragal. Mm-hmm. mu ngi ñemeetul yéeg ci kaw mais pour te dire xale da koy da koy taf ci sa bopp. comme j'appelle day toog ba ci yàgg mu ne papaam woowul ma bu waxee yóbbu leen ma ñu bañ. Mm-hmm. woowul ma sama turandoo bu ñu wooyee ma décroché mu ne ma bul coupé. Mm-hmm. ànd ak téléphone bi la fait que muy dégg sama baat. day dalal xelam ba mu yéeg ci kaw ba mu yéeg et les parents loolu la ñu war a def ak seeni i doom. Mm-hmm. mami xale yi léegi boo leen miinalul seen bopp dinañ def loo bëgg a faj te doo ko faj. ak a leer dañ lay tëgg wër la ndomb roof la galgal. nga naan naan mais man à quel moment j'ai échoué. waaw tu ne t'en rendras compte. Mm. xale daal doom def ko sa xarit. Mm-hmm. bu dee jigéen a góor a yan. dañ naan rawatina jigéen mais góor ak jigéen ñoo yam ci ci jamono jii ñu toll nii. lépp ngi ci internet bi. loo leen xale yi jàng nañ ko ba noppi lenn rek moo la ciy sauvé def leen xarit taf la ci seen bopp lu ñu xam wax la lu ñu def wax lu ñu bëgg a jublu itam laaj la moo lay muccal. surtout je te dis il faut nga fexe ba di communiquer ak ñoom ba lu ñu am ba lu ñu xam di la ko wax et puis yow parce que yow nit personne n'est parfait. mami mm. adduna sa jaar-jaar mooy mooy mooy euh, mooy defar sa personnalité mm-hmm. te jaar-jaar boobu yow mag bi tu l'as déjà eu donc c'est à toi yow yaa war a gunge xale bi pour que même bu amul sa même jaar-jaar ngay wax muy dégg souvent da dégg mag ñiy nettali dañ naan sama baay moo wax wala baayam moo wax mu dégg samay nopp mu nettali ma mm-hmm. Mm-hmm. te loolu boo koy nettaliwaat c'est parce que ça t'a servi de leçon. mais oui bien faut boole suñu njaboot te mami nag moment bi ngay yor di beddi. Mm. am na ku yor ay at mënul am. billaay mënut a yore. wallaahi ndeysaan mami am na koo xam ne àddunaam yëpp daf ko wër njaboot mënul am. parce que yàlla dafa dafa bind. te yemalewul. Mm-hmm. séddale nag ni mm-hmm. juróomi baaraam bañ a tolloowee. Mm-hmm. noonu la nit ñi utee. am nañu koo xam ne day njaboot ba doyal te du sa am sax lu mu leen yore. wallaay dëgg la wallaay dëgg la. am na koo xam ne amul lu mu yoree benn njaboot. Mhm. waaye suñu borom namm na ci moom day njaboot ba doyal. Mhm. day ba naan bëgg naa mu doy te du doy. Mhm. saa yu ne jeex na suñu borom. nen yàlla booba ca nen yaa jeexagul nen yàlla suñu borom moo koy ca nen yàlla de am na koo xam ni giiru dundam. bu gisee benn mbëgg la. am na koo xam ne benn la gis waaye fekkewul. wallaay dëgg la donc boo yoree yaral. souvent j'ai l'habitude on a l'habitude de le dire mag ñi dañ koy wax dañ naan doom ma lan la ku lii rek yaa yaa yaa yaa moom mhm. moo tax il faut beaucoup d'éducation rawatina ci moment bii ni ñu toll mhm. il faut que ñu ñu jegewaat xale yi même boo jurul sax mhm. parce que chaque femme doit se sentir jigéen ju nekk yaay la jigéen ju nekk yaay la xale bu ndaw bi ngay gis ak ku mënti doon yow defal rek dëgg la kenn xamul kan ne mu ngi mel ni yow boo ma xoolee da nga war a xam ne yow yaay nga ci yow ak aw jur nag <laughs> <laughs> lii rek mooy problème day dugg ci pertinence ba nga kii na bu génn moom buy ruube rek du ko tey lii rek mooy problème lii rek mooy problème bu nabu koor direct news ñëw ci classement université mu ne UCAD du première francophone euh, te du itam vingt et unième université africaine lii nag Idriss euh, Maham mi moo corrigé euh, Moussa Balde Moussa Balde da ne vingt et unième place la ñu jël kooku nekkoon dangaa jum vingt sixième place africaine moom la ñu jël kon nag fi nga wéeru ci wàllum classement du foofu waaw kay lii question bi journal bi tey dafa publier lu neex jënd leen ko ngeen leen ko enquête ñëw ci dernier obstacle Karim Karim ban obstacle nga amati si amende de 138 milliards sur la tête de Karim bari na nag ah mais Badara nee na tout à l'heure dindi e na loolee ah dindi na ko. waaw alhamdulilah parce que kii wax dëgg yàlla ku ko yokkal leneen moom it. mbaxanaam ba dara leeralal balaa ma laa dugal. Karim sa mbaxana bii <laughs> na ko àbb ci sa baab mbaxana mii moom mbaxana par wàddal moom wax dëgg yàlla mbaxana mii moom Qatar defaru ko mbaxana mii. Mhm. te Karim sax fii daf fi xawoon di muy gën a màgg di gën a nduru papam mhm. lii dafa doy waar trop moom it Cheikh Yérim lu ko Cheikh Yérim waxal. bi muy wax ni Qatar moo géej waay tolloo superficie bi. Ah. kan moo wax ne Qatar ak Guédiawaye a tolloo joxe woon na date exacte bi Karim di ñëw naa Karim da ko njuuy rek. kan moo wax ne kataara ak Guédiawaye a tolloo yow. Cheikh. 24 <laughs> euh, heures ñëw ci <laughs> man na bu information yi muy am man lii jaaxal na ma trop. du man de ba dara la bàyyi naa kaa. <laughs> plan de communication pour wane seen bilan 12 en de règne ak ay perspectives mu ne yi dafa sabré ses communicants nga xam ne dañoo jàpp ne daal fësalul bu baax li nga xamante ne moom mooy euh, liggéeyam Macky ak Abdoulaye Wade la paix des braves ah bon yàlla na yàlla dafa jàmm le quotidien ñëw ci enquête voie de communication mu ne un pays en route. de de nouvelle voie infrastructure euh, ñoom daal de su sulleeku nanu su sulleeku loolu lañ sulleeku nanu ah tubaarka sorti de terre sulleeku nanu mu ne ay kii ay nouvelle voie ak ay infrastructure ah, ñu sulleeku waaw ah, kay waaye population yi li ñuy jooy mooy daal travaux yi danoo yàgg beaucoup de localité itam ñoom ñu ngi réclamer li nga xamante ne moom mooy seenub tali le regard ñëw ci le sermonneur sermonné kooku mooy oustaz Omar Sall mi nga xam ne dañ ko condamné à euh, six mois de prison avec sursis les échos ñëw ci Pikine tali bu bees Nabou Leye seen koñ la de. ah ah dëkkuma foofu de. <laughs> yow foo dëkk ci Pikine. rue 10. ah bii tali bu bees la kon yow sa koñ la ngaa la kan. moom it dëkku fa. ah yow tamit rue nga dëkk. Mhm. man technopole laa gën a jege sax. ak cité Lobat waaw. kii dey kii day faatu na de faatu na de Nabou te li ko rey mooy xuloo bu mu am ak jabaram daal. lan la def. ah nee daal da koo jabar ji daal da koo bu max ba mu ko bu maxee ba dal ci bombanu gaas ba. mu faatu mbaa da takk xam naa ni mu ko bu am na doole de. na doole de mu ko bu doy na waar de. dëgg yàlla. Hmm? bàyyi leen bu ma xaate bi nag bu ma xaatee sotti lu tàng ay bett dóoree ay nool ndàcc ci kër gi bàyyi leen loolu bàyyi leen loolu loolu baaxul bàyyi leen loolu du dëgg bàyyi leen loolu hmm? seytaan dafa bari doole loo xam fu muy jógee xam nga loo tax man nabu gis nga man man naturellement sax man ay xale yuy bëri bugguma ko hmm? je ma gën a bañati nag mooy jigéen buy bëri bugguma loolu seytaane dafa bari doole il faut day laxasu ci ay xol waaw kay loolu la il faut beaucoup beaucoup de raisonnement beaucoup de calme. ah moytu leen moytandiku leen yenn yi. pour rien nit ñu naan la jigéen doxal nànk waxal nànk da ngay dal dans toute situation mën nga toog nga utiliser sa xel boo ñu utaleeg ñeneen ñi dinañ waxante dëgg. dëgg la waaye nag des fois nit yegg foo xam ni doo comprendre sax seytaane moom fi mu lay duggee. day laxasu day jaxasoo ay day day ay xol mu def loo xam ni. bu ñu nee la diw moo def li tu vas te dire non. wallaay ndeysaan. Mm. du ko def. moo tax yenn yi il faut l'éviter daal ànd ak dal dal baax takk ñaareel la góor ñi ba ba bàyyi leen de xam naa li ma leen wax. takk ñaareel jar na nga ciy bëmmax nit. Mm. waaw daa ku may ci koo xamante ne góor bu jullit am na droit am ñeenti jabar. Mm. takk ñaareel la cee sañ bëmmax nit koo ci bëmmax mu këmmax la le soleil ñëw ci édifice de plus de 3 milliards. barke sëñ Bamba daa am ku may nuyu de. nuyul ñëw ma tur bi. kon baal. maa ngi koy nuyu ci mbirum takk ñaar maa ngi lay nuyu bu baax. ndax dafa takk ñaar ba pare dafa gàddaay. <laughs> inauguration nouveau sanctuaire marial bu Popenguine eh benn édifice de 3 milliards macha allah moom la ñu ko jagleel l'évidence ñëw ci euh, marché Tilène bu Ziguinchor mu ne Yaay Fatou Diagne euh, dafa annoncé benn nouvelle attaque par l'opposition candidat benn Bokk Yaakaar bi mu ne euh, ndax il a prêté le flanc ou pas il parle de mais Mimi ak Cheikh Tidiane Dièye ñoom ñëpp dañoo dénoncé séjour Paris Paris neexoon na nag Paris xumboon na de Touare Libération. ñëw ci la piir bi ñu éviter à justesse ca Ngor ñaari blessé ak ay dégâts matériels enregistrés lii itam xam nga lu ko indi na bu explosion bonbonne de gaz ci benn appartement bonbonne de gaz bi xam naa dafa amoon air itam comme li xewoon nag ci jëyeegu nga xamante ne ñu ci bëri ñàkkoon nañ seen. ban marque la moo xewaat xaw ma ban marque la de wax dëgg mm. yàlla. xam nga ban ban marque la de waaye lu mat bàyyi xel la Colin Faye mi ak ay co inculpé am leen euh, déglu itam euh, lii quotidien ñëw ci oustaz Omar euh, mu ne jéggalu na présente na ay excuse am même chose prêcheur Omar Sall mi nga xam ne dañ ko condamné 6 mois ak sursis l'info ñëw ci reprise des cours en présentiel à l'UCAD mu ne le ñett du professeur Moussa Baldé il a donné les raisons l'observateur ñëw ci choix des noms des candidats aux coalitions mu ne les politiques dañoo nekk en panne d'inspiration xam nga lu tax Nabou laaj ma lu tax ñu nekk en panne d'inspiration politique yi. Jonn 2024. Mimi 2024. Diao 2024. Idi 2024. MLD 2024. Abdourahmane 2024 vingt seen problème. Idi Idrissa Seck Idi Idi 2024. lan lañ bind Idi 2019. et Idi 2024. mu ngi ci làng bi kon. nga ne. mu ngi ci kay mu ngi ci mais coow li mooy dama ne lan moo leen tere ut inspiration ngeen ut tur mhm. bu original ah waaye yow kii fëlee ne diw 2024 da yéen ñoom ngeen maasaale 2024 diw 2024 ngaala 2024 nabu 2024 mami 2024 bijey 2024 loolu ay tur la sûr que liiroo caravane orange waaye fii foo gis ban caravane orange yow caravane orange di woon 2019 nga naan ma ay caravane orange fii indi 2024 laa la wax yow ban caravane orange nga gis fii caravane orange di woon coalition de parti yu yu ànd ak Idrissa Seck yow mii ça va ah nii ngay def ba énervé a waay les partis souffrent de la personnalisation jël seen tour yi rek toftal ko 2024 yomb na nag wuti leen yeneen tour ah parce que kii diwu diwu foofu 2024 yéen barki Serigne Bamba bu ma la nammee topp yow xoolal man yàlla naa nekk likilig Walf Quotidien ñëw ci relèvement des taux directeurs mu ne en période de campagne l'argent va couler à te yow ba mu moytuwulee dinaa woo Idrissa Seck passe ba ko directement nga laaj ko li nga ko bëgg a laajaa. Ah. avec kay réew mi mu ne l'encours monte en flèche révélation de la DPEE e sur la dette publique euh, journal réew mi dinu ko xamal source à ñëw mu ni ci le verre dans le préservatif. enquête du rapport sexuel avec un partenaire non régulier chez les au Sénégal dina ko dëgg yàlla awma ci xam-xam awma ci xam-xam ah, awma ci xam-xam noo dëgg yàlla man nag bu ngeen may tiitire dee leen may tiitire loo xam ne mën naa caa wax waaw ah, man ay ay préservatif ay sexuel yooyu xaw ma ci dara man xaw ma ci dara wax dëgg yàlla daal la dégg li ma la baax ok ah, hmm. na bu dégg ma ma yow Idy 2019 nga gis. Sud Quotidien. ñëw ci débat démocrate bi la Idy 2024 laa gis. man nag bu doon may moom xanaa xamoo moom it nit ñi yow yaa waroon nekk conseiller xam en en communication. man. ah nabu nag bu ma tooñ nag nabu nag man moom wax dëgg yàlla man mënu maa conseiller kenn man damaa xam dara. mais dëgg la inconnu mais il faut mettre ton nom. man ma xaw a ñeme tuuti tu vois. Euh, c' est moom mënoon na tudd Iddi Iddi waaw bañ a dugub c' débat démocratique xañoon na ko ko fi. dialogue politique en berne journal bi mu ne l' autre face de l' assemblée man de ci kàttanu yàlla dama bëgg 2024 ma dugg ci ak jàmm tribune ñëw ci revirement de situation à Touba Serigne Mountakha mii nee na Baye Fall yi désormais désormais activité politique rek lay tere ak football. moom rek laa bëggul ci fii ci ci ville sainte bi dootoo leen jàpp nii ñi di wat seen bopp yi di nangu ay bracelet ak i casquette le raisons d'une mise au point nag tribune wax na ci mu ngi ci biir yéenekaay bi boo ko bëggee jëndal nga liir ko bu dëkk tali ta Pikine tali bu bees am ngeen coow de ndaw si rey jëkkëram ji journal bi itam waxaan na ci de ah, assommé ko ak bonbonne de gaz loolu tamit ah quelle brutalité ah Quelle brutalité. La polygamie s'en trouve justifiée. Les femmes dominent toujours dans la population en âge de se marier. Tubaarkàlla tubaarkàlla lii lay dëgg sëy dafa jot dangeen di takk ci xale yi ndax xale yi jigéen ñi jeex danoo bari ngeen di bàyyi nit ñuy lambar lambar yi di xuutar xuutar yi rek yaa ngi dégg war a am jëkkër ci amul jëkkër gis nga <laughs> sëy sëy dafa baax ci jigéen de. Ah, waaw loolu duñ ko def ci réew mi. loolu man duñ ko def parce que dañoo damaa bëgg xale jigéen ñëpp sëy yow moom takk bàyyi leen siis ki bii mag lay ngeen bàyyi siis bi xaw ma walaay asim xaw ma yow xorom ba walaay mbay lil ma ko <laughs> walaay asim man yow mi takk ñaareel jamono ji ñu génn nii weekend bii allez ziar mu wax sa tur aj présidentielle bu 2024 F24 daal nee na dafa bëgg participation de tous les détenus politiques euh, oustaz Assane oustaz euh, Omar Sall pardon euh, écopé na de six mois de prison avec sursis na bu boo paree heure boo paree mën naa dem ca làmba ja de ma dem ca làmba ja. journaux alamin lan la da nga bëgg ñu wax leneen. non damay laaj rek. lii kese lañ wax. lii dong lañ wax kese képp. lii actualité dëgg duñ ci wax buñ amul actualité duñ ñemee wax ci lii actualité problème bi loolu la. daa am looy siiki saaka ci maanaam ñoom li ñu tiitire wala. siiki saaka na ci lu bari. ah, ah. Nabou ñii daal tey loolu lañ xëyee de wax dëgg yàlla tey moom booy xool actualité bi daa mel ni dafa xaw a pauvre sax nag. am nañ ñu dem ci làmb am nañ chance sax ba nga jël ci ay fukk nu yooyu noonu. <laughs> yàlla de waaw loolu it loolu dëgg la jullee. loolu loolu it ah, dëgg la sant yàlla de. wax dëgg yàlla loolu it dëgg la à tout moment mën naa réduire nombre de journaux yi à tout moment suñu làmb nag mu ne bombardier ak rëg-rëg ñaar fukki fan la ak ñeent ci weeru décembre ñu ne loolu veille de Noël la. le 24 décembre. man xaw ma lu ngeen mënti bëri bëri mais ñun dañuy baali pour ngeen teel a daan di ngeen di daan ñun dañuy dem defi leneen. non dañuy liggéey le 25. nabu nabu liggéeyuñu le 25 dama ne la le 24 décembre ci boppam yéen bu ngeen di bëri ah. ngeen teel a bëri ci kii daan na teel a daan parce que réveillon de Noël la yaa ngi dégg yow ngaa la kat ñun dañuy baali. dañuy réer ba pare après dañuy baal dañu dem Sidi Diop laal Wally Seck dem Viviane ñun looy la ñuy def après. amuñu fi temps di toog di seetaan combat bu dul jeex dernier face à face bi nag le 16 la bu ngeen ma mayee deux minutes ci seen temps dinaa leen wax ne moom ci face à face bi dama ciy ñëw ndax lii dama ciy insister. ayca ngeen ñoo bëgg jox cadeau Noël ne da ngeen di jouer da di bëri pardon ci jour li nga xamante ne moom mooy 24 décembre mën na la naam ok waaye teel leen a bëri te kii daan na teel a daal. Mhm. yaa ngi dégg te comme Pikine ngeen koy defee waa Pikine ni moo bëgg saa yu làmb amee foofu tàppe ci du te tapit yi lañuy soxla dañuy <laughs> soxla def seen ay réveillon de Noël yaa ngi suivre mon regard suivre mon regard yaa ngi suivre mon regard yaa ngi koy suivre mon regard yaa ngi koy très bien léegi su ko defee nag mm, mm, mm, ñooñu dañuy bëgg génn guddi ca bu ngeen tëggee làmb ji ca arène ba te nee nañu saa yu ngeen tëggee arène ba làmb ñu wàpp ci dootuñu nelaw kon nag dimbali leen nit ñi ngir yàlla rek ngir yàlla jëmmi rasulilaay ngeen teel a bëri teel a daal nit ñi teel a tasaaroo.

coup bombardier ñaaree am tërëf kaw mbaa dem ardo combat mu gaaw mu gaaw mu gaaw yàlla na ko yàlla. Reug Reug lay bëreel de hmm. te Reug Reug sama doom la de. est-ce xam nga ne komba bi sama doom laa faral. ah man sa doom laa faral nag. waaw ragal féete nag day xañee wërsëg nag. Ah, mais ñemewu ma nga baal te Reug Reug nii sama doom la. macha allah man maay bàjjanam. Mhm. caaroy géej lañu ñu dëkk. tuwaar kàll tuwaar kàll yow Bombardier ndaanaan nga waaye yaa ngi bëri ndaanaan ku naqaree daan ci ca làmb ji tamit rëg-rëg mii dafa ñëw ak i ndamam ñëw ak i victoire am ñëw ak courage ñëw ak njàmbaarteem ak mën a bëri dama ne ñun dañuy réveillon ke man sax c'est décidé léegi sama réveillon caaroy laa koy defe akay ah loolu la waaw damay réveillon ji caaroy incha allah kër rëg-rëg laa jëm lekk ji ginaar ak soos ñun bu boobaa dana danoo danoo càppateen non danoo cappateen anga dégg li ma la wax bu baax mhm. ñun bu boobaa ñun le 24 décembre danoo cappateen bu nu paree danoo ndaw ràbbin ci kàttanu yàlla yàlla na yàlla may ndam du ma la ko nëbb Jeanne Gomis tibbal bi baal naa la ko kor ñaaña ngeen di togg <laughs> loolu nga ci Noël gi. na nabu nabu nag bu la Germaine invité da ngaa war a dem wax dëgg yàlla. te daf laa war a solol robe ci fête yi tamit loolu tamit xel la. dinaa ne mais mais baana diggante 24 25 31 décembre. na la solol robe nag. nga xamante moom la ñuy tàmbali incha allah at mi en 2024 yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal. kenn na bañ a ci barke Seydina Mohamed mu may la bûche. Mhm. waaye bëggoo ndawal. bûche bëggoo ndawal ndawal bëggoo ko. Mhm. Hmm. stade ñëw ci <laughs> Jackson mi défier gànna mu ne Ede Toffees mu ne en en en confiance. Hmm. record ñëw ci Saudi Pro Al Hilal ak Al Nassr Nassr mu ne victorieux Koulibaly dans le tempo Sadio passeur décisif. Euh, tubaarkàlla macha allah ak classico Casa Sport Jaraaf bi ci Ligue 1 septième journée je pense que euh, euh, Badou Badara Badou il nous en a parlé ce matin. Ah, mais lan voilà. moo intérêt bind fii nii nii démb dafa dóor. AS Pikine kan la dóor. ba dara leeralal ma. kon li ngay wax ni wóoru la. AS Pikine dafa dóor ci am. yéen AS fan yii dafa mel ni da ngeen gëj am ndam de wala yéen a ngi am ndam. démb. déedéet da ngeen nekk en chute. muy quatrième bu bu waxati loolu. AS Pikine yéen a ngi dóor. non bi ñu mujjee wax semaine passée ñu ngi woon septième place ba dara na leer. instant bi yéeg nañ quatre. kon kon am ngeen ay ndam. non ñu ngi baax fan yi ñu ngi baax nag. ñu ngi ah, tolloo tuwaar kàlla kon yàlla na yàlla def jàmm. ñaanal leen suñu borom lafal ñu cat du dëgg. yàlla leen yàlla lafal cat waa. leen ñu toj fantam fulum. aminal <laughs> bage. <laughs> na bu excellente journée. ñu yendu jàmm ba suba ak jàmm incha allah. goro goro goro goro.